dinaa la wax li nga bëggoon a sama xol dafa bëri sarale sama xel dafa fonk ganale ana bébé Mouhamed Aysatu ana bébé Mouhamed yow danga dul tontu du yow la ñuy waxal ci néeg bi laa xate woon après ma dem si waañ bi di raxas pour préparer ko purée bi mu ñëw fekkaatuma ko lan mooy mu ñëw fekkaatuma ko yow Aysatu lan moo tax ñu teg la kër gi nit day ñëw dugg ba ci biir kër gi dem ba ci biir néeg bi jël xale bi dem yoonam te yow doo si xam dara yow Aïssa nit eh? Eh, xool ma fi gis nga bébé Mouhamed su ñëwulee yow police laa lay yóbbu loolu na la leer. Massa lim def bu ko ko jappé dégg dafa nek ci ay ya. problème waaw wuyu ma kan mo fi mujjee ñëw Bira mo fi mujjee ñëw Biraan bi mu ñëw dafa tay xalé bi tey na ko doon naa ko jël sax muy defal nank mas nah, naa moom naanu du neex à ton avis kan mo wara jël bébé Mouhamed. dafa nga yaakaar ne suma xamone ki jël sama doom wala ma dute rek ne kenn moko wara def Dina tok fi di waxtaan ak yow te juguma dem lijeenti ko. c'est ta faute Li lepp yow la So togon ci kër gi melni nga wara mel Li lepp du am Waye sol nga sa dal genn nga kër gi dem sa yoon kenn xamul fu ngay dem ba heure bu la neex nga ñëwaat ci kër gi yow da nga louche. ay plan ay dilek ak moy sa mbir. Tafa je comprends que ne la mer danga nekk ci pression mais aussi ça te permet pas de dire n'importe quoi. xam naa lii encore say plan pour empêcher sama diggante du ko mariage mais nan la leeralal mënoo ci dara. ma wax ak yow est-ce que turu di kon mën na cee sama waxtan ak yow di kon yoonam ci est-ce que meuna ci baña genn la xam la la bëgg yi même asaman su doon wacc sax mbindeef mënut a tee ma takk di kon dimanche bi laay tak di kon loolu nga def ko sa bop bu baax da nga bayyi ngay sens dafa di kon dik dikk takk dikkaat dem takk demat je m'en fous mais au moins respecte-moi respecte ma souffrance fa xale bi man mako indi ci aduna donc yakarna naa suma su beug doon empêcher sa mariage ak Dikon dina ko jaarale keneen ku du sama doom musuma la bëgg sama yaay kay moom ma sonal topp ma takkal ndey fili takkal ndey fi mais je ne t'ai jamais aimé c'est pourquoi ma takk la mais musuma la bëgg donc c'est du pareil au même ma nit bëgguma la te musuma la bëgg ma sëyee ak yow xam nga lan moo c'est parce que sa yaay moo ma topp di ma supplier sa yaay moo ma topp di ma saraxu xam nga lu tax parce que elle se doutait que na ndax yow góor nga wala doo góor. man su ma dee góor yow xam nga su dul góor yow xam nga yow su dul woon góor naa jur bébé Mouhamed. loolu nga yaakaar gis nga Mouhamed man mii ndayam dong maa la wax kuy baayam. ko gëmal yàlla xale bi leer na ma ne kenn sàccu nitu ko nëbb rek te mën naa am fii ak mu feeñ maa ini, nii. apa? Ya? sama ça va kay toog. ça va bien. inspecteur sànq ba léegi maa ngi lay wax plainte contre X mais e tu ne m'as rien dit waxuloo ma ci dara.

calme-toi. non non déglu ma inspecteur bul ma calme xam nga je bëgg sama Je suis là. ci suis wala mu ci ne suis du ma fi jógee tant que plainte. docteur Sarr n'est-ce pas là. Je une caméra de surveillance sévérée..? Inspecteur, kan moo caméra de surveillance ci chambre à coucher Je caméra de surveillance la pour

<laughs> loolu jeex na bu yàgg. Mm. mais yow an sama wàll si clip cakati bi. voilà sax exactement man looloo ma fi indi wala man ndax ñëwoon tournage ba. man xam ne fan yëpp damaa feebar. ba instant bii nii damay forcer rek. Ah. Mhm. mais yaa rek. bu baax a baax na. Hmm? waaw mën a yóbbu Ngoy Mbayaar. Ngoy Mbayaar fuy foofu. ci Bawal la bokk. Ah. Hmm? ah en tout cas de man moom am naa chauffeur boo xamante ne moom foo bëgg a dem moom mu yóbbu la fa moom. ah loolu dina ma neex. téléphone bi la moy sonné bu sonné sax man mi damay tit téléphone bu sonné jooy liir <laughs> non ba danga maa fàtte xam nga woon xam nga yow ah ni Birane nee na ma dafa pare pour venger wu ci yow waaye ñun loolu suñu yoon nekku ci su fekkee ne nag moom moo nëbb sama doomu mag damaa bëgg nga dem lijjanti lépp nga def ko tout de suite nag sinon tu auras affaire à moi

gis nga Mouhamed Tafa Sarr nii nii tonton ko maanaam mën a wuy baayam Tafa Sarr Tafa Tafa àndal ak sa sago instant yi nii nii su ma sañoon nga garde sa calme xam nga lu tax parce que lii nii nii du dara lu dul manigance ndey fi di moom moo nekk derrière ay jeu la nekk di def teg ay plan di jouer ak comédie yaangi deg te lim ci djublu du len lu dul bëgg nga annuler sa mariage ak dikkoon ndax dimanche la xam nga loolu rek tax mu beug ci jot léegi léegi nag xam nga mom dafa yakane mo moo mus a muus nit ñi fàtte ni nit ñi ay xel lañ yor dañuy réfléchir dama bëgg ñu tendre ko piège. un piège. na ngay dem nga ni da nga annuler sa mariage ak dikkoon. pour lan. annulé dara jaralu ma may annulé sama mariage bi di ko eh. du ma ko reporté non non non waxal leneen waxal leneen loolu duma ko def man gay mënuma sàmba te xamoo la muy wëlis da ngaa comprendre li ma la wax yow xam nga ni sa mariage ak jikkoon boo ci bëggee benn man bëgg naa ko fukk ndax gis nga bu baax li ma ciy dox dama ni ndey fi li ngay faire croire loolu nax ko ne ko da nga annuler sa mariage fekk amul. xoolal man rek defal naa man maa nekkul ci ay dil nekkatuma ci ay dil Adi nekkatuma di xaar suba wala ñi may wëndeel loolu di defatuma ko tour di ma autour du pot man léegi je vais droit au but. li may def day leer nañ nekkatuma ci affaire yooyu noonu ma nekk fi di jeu jeu ma si wax sax lenn rek laa la la laa lay xamal maa ngi lay wax lu la nekk sa bopp nag dara bu ndaw bu okkee sama doom du ci wax xool ndey fi dama koy rey qu'est-ce que tu as de si grave à me raconter sama doom laa bëgg nga wax ma foo ko dugal dañ ko sàcc te xam naa ne setuloo ci. Birame sama doom laa fan la nekk nga bëgg a xam kan moo ko jur. bien sûr. yow baayam.

kan kecil lah. ma ko bul nag ma mere quoi mais dama ñëw pour la nouvelle bu neex na sama clip bi ñu doon def ak pama waaw léegi nag xam nga lu ci def sa mariage bi dafa ndara toj ak ñoom Fatou Cissé ak Abdou Karim ñëpp war a wàcc ci mariage bi yaa ma gën a xam. yor mariage bi gëw ma am. pardon. Ndeye Fodé ak Tafa Sarr ñu sàcc seen doom ji. Naas. ça va foo nekk nii. man maa ngi sama kër. waaw ah, la soxla woon. yaa fi ñëw. ok c'est yow noo tudd. Aïssatou laa tudd. nga ne. ah yow yaay Aïssatou Sarr. kon yow yaa nekkoon ak bi sàcc. waaw maa nekkoon moom. waaye léegi dama bëggoon nga ñëw ñu ànd police parce que dama am ay questions yu ma la war a posé. police. kenn nekk fi de man kese maa fi man xawma ku fi nek ak ku fi nekul man yow yaa ma intéressé nañ dem. eh xanaa bi yow lay wax. naan sama garab unajiau badugu kasofa oh, oh, oh. piche mum boppam kenn xamul yabaram dugu naa ci badugu kasofa oh, oh, piche mum